baisse tension yi parce que lu ci dënn yi xajul ci dëkk bi lu ci dënn yi xajul ci ci ci dëkk bi ñu woo kilifa diine yëpp nu doole nu ñaan doole réew mi ñaan di wax senegal yëpp ci nekk fi nga toog bul xeeb sa bopp ñaanal soo mënul ñaan nga wax jàmm nit ñi di ñaan di wax jàmm rek jàmm dina dina dina am Sénégal jàmm rek mënu ci il faut ñuy wax jàmm di dox jàmm état bi nag ci wàllam pour jàmm am lu ñuy teg lu ñuy def duñ koy teg ci dëgg ndax lépp loo tegul ci dëgg day day màpp donc lépp lu ñuy def dañ koy jéem teg ci dëgg amul lu ñuy nëbb lépp leer na lépp jaar na ci yoon ku ci am lu la jaaxal laaj ko ñu ngi ko war a laaj bul informé ci mbedd bi bul wu ci mbedd bi te am na yenn information yi donte ne bind nun ko ci ordinateur wala ci téléphone wala nangam mag mbedd ñoo yam ndax benn nit mooy taxaw rek bind ko balancé ko loolu nag du Sénégal rek ci àdduna bi yëpp la xew mais direction générale des élections mi ngi fi waa Sénat ñi ngi fi administration territoriale mi ngi fi muy gouverneur yi préfet yi ak sous préfet yi ku dem ci ñoom di nga am information bu exact